ومن طيبات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يخذل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المسلمون والمسلمات أحييكم بتحية الإسلام ala wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk jullit yu góor ak yu jigéen jullit yi ñu bokkal tariixa ak ñiñ ko bokkalul kenn ku ci nekk ñun quartier Ndiassane ñi ngi yëkkati suñu nuyoo di ko tuddee nuyoo lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tey nag thème bi mënu fi xaj yépp ndax dafa guddi mais thème bi nga xam ni moom lañ jëloon tey mooy ñu xool nu ñu jekkalee yarinu xale yi nu ñu jekkalee yarinu xale yi xadiisu yadru xawlal awlaat nañu xool nan lañuy jekkalee yarinu xale yi rawatina xale yi nga xamante ne nii ci mbedd yi lañuy ñuy topp la ñuy nekk éducation de base tey moom la ñuy waxtaan éducation de base nag mu ngi ci biir kër yi ñi ngi ci mbedd yi waaye ñi ngi tamit sax si école yi ndax tey boo xoolee xale yi nga xamante ne nii suñu xëyee suñu ndekkee ci mbedd la ñuy ndekkee suñu añee ci mbedd mi la ñuy fekkaat suñu reeree ci mbedd mi la fekkaat seen yaay yi ñooy mujj wax ni dugg leen xale dafay am noo xamante nii moom lañ ko war a yare yarin bi nag bari na waaye dañ ci tënk benn rek muy dañ leen di xamal ni leen daara yi léegi macha allah bari na école franco arabe yi macha allah bari na jardin d'enfants yi macha allah bari na yaay yi nañ jàppale xale yi ak papa yi ñuy dugal xale yi ci daara yi ñuy jàng xam éducation xale bu nekkee ci mbedd mi li na ci mbedd mi rek lay defe ne moom mooy loolu nañ ko war a yare moom lay màggaale te moom lay màggandoo waaye tey xale bi xoolal tey xale bu gimmee ci daara ak xale bi gimmee ci mbedd kan moo ci dàq saaga moroomam surtout man saaga bi ci laay préciser saaga yi ci xale yi ci mbedd mi métti na doy na waar te ñaaw na parents yi jóg leen ngeen organiser seen doom yi dugal leen ci daara yi su fekkee fay bi dafa cher wala mu métti ngeen ñëw waxtaan ak ndongo daara yi ñu xool lu ñu arrangé ba dugal xale yi parce que xale tey mooy magu ëllëg te magu ëllëg ñoom ñoom la ñu ñaan ñu yori réew mi ëllëg te ñun ñii ñëpp ay jigéen lañu yoo xam dañoo toog suñu kër yi di sëy kenn jomb ci sa doom nekk président ëllëg kenn jomb ci sa doom nekk ministre ëllëg li koy indi nag mooy éducation de base bi nga xam ne moom lañ def tem mën naa wax tey du jeex mi ñu nii waaye heure bi moo ñu ko mayul mais nañu jàppale xare yi ñu dugal leen ci daara yi. lii bi ñuy def ñu dajale li ñu am wut ay parrain ak ay marraines. jël ko def ko ci xale yi def ko genre social ñu rafetlu ko torop torop torop torop ñu dugg nag ci koñ bi yëpp porte à porte amul kër gu ñu bàyyi Ndiassane Tire yëpp daa di leen koy yëgal jox leen ay carte ñun pare na ko Samba Dara bañ ko ko pare ne aussi macha allah xale yi nee nañ teeru bu leen teeru rek mu leen gënal ay millions boobu ba Samba toogul. lu ne mu jël ko déemam ak daqaaram ak yépp mu jël ko def ko ci macha allah ñu koy gërëm xale yi nee na ñu ngi gërëm Samba ñu ngi gërëm fu gërëm yem amul fu mu commencé mais am na fu mu commencé mais amul fu mu yem merci Samba Dara parce que bu la nekkoon dëgg dëkkuma Ndiaye sentir xawuma leen man pare ne dañu dëkkal mais ku deful doo dégg merci nag ndaw na mais ku ko deful doo ko dégg merci beaucoup. xale yi ñu gërëm nañ la kontaan nañ trop trop trop allah euh, ñu maree ko madame le day jaggu jéem nekk fii mais balaa maa dem fi kenn damay dem ci biir tàkkoon xale yi nee nañ tàkkoon ñu ci bari xamuñu woon ba dem ba ñu ngi waxtaane ba ci année bi yi di leen wëññi na ma waa sax mu nekk di la baaxee. ma ne ko macha allah ngeen xamu leen mère Tako man maa xam mère Tako man benn naa Ousmane Ndiaye ndax tey jii bu àll bi leeree ba nit ñi mën fee daagu di toog gendarme def ko sonaloon ñu depuis 2011 2012 2013 yaa taal sa oto jël sa gasoil yëpp ma ci man ak Bernard ak ñeneen ak ñeneen yóbbu ñu ci Moma Ndaw ak ko seen yóbbu ñu ci ñeneen ak ñeneen jël say nag di rey di tuur di sa gas di suul kon mention spéciale yow Tako. lay gërëm fu gërëm yi yem nee na ñoom muy naaj boo leen woowee say doom lañ mu guddi ñu sa ginnaaw mu lëndëm ñu ci sa ginnaaw buy taw ñu ci sa ginnaaw parce que waxuñu teeru bu leen teeru waxuñu li leen def mais nga jël xaalis bu baree baree baree baree baree baree baree tàgg ko def ko ci te bu la neexoon doo ko def. un font deux et deux font quatre. Le quatrième arbre va Parlez de quoi De l'éducation <laughs> Oui, Chamandé Éducation Wow Éducation de base kii moo yaakaar bi Jolof kii moo dimbali waa dëkk bi kii waa Ndiassane TV fa tubaarikàlla macha allah ñëw naa leen. waaw monsieur le maire jàmbaari Pikine jaa ngi nii. jàmbaari Pikine jaa ngi nii. ki mën ñëpp a ngi nii. ki dimbali bi. ki nga xamante ne nii moom moo di jox leen ma ndaw li ma def si ñoom ñu wax ki dimbale xale góor yaa ngi nii ki nga xam ne moom fii ki ñu defaral fii ba fii di fi tànn mbaa ñu fi lang nii naa leen grâce à moom. ñoom leen monsieur le maire benn tàkko. barke yu nit bi. barke yu ndaw. fekkee fii. xoolal yaay sunu meer. waaw muy ku bañ a ku nangu yëpp yaay sunu meer. xoolal école boo dem lu am na directeur. Ah. mooy Pikine ñi fi nekk yaay seen directeur. monsieur le maire maa ngi lay jàmm di wax monsieur le maire messieurs les délégués de quartier notables et élus locaux mesdames et messieurs les conseillers municipaux. monsieur le délégué de quartier de Diassangi, en l'occurrence monsieur Mamadou Diop. Chère population de Diassangi, chers invités, tous ici présents, en vos rangs, titres et je vous salue en vous disant Assalamu alaikum. Soyez les Avant tout, propos, je voudrais témoigner toute ma gratitude et ma reconnaissance au mouvement des jeunes habitants de Niafanti pour avoir bien voulu associer ma modeste personne à cet événement aussi important et hautement symbolique. un grand plaisir de me retrouver cet après-midi parmi vous pour partager les moments de joie qui constituent la présente cérémonie de remise de cadeaux et surtout aux lauréats, savoir les meilleurs Il est heureux également de noter qu'on aura à développer sur le thème cette première édition, durant cette première édition, à savoir, comme on dit, l'éducation de base. Pour conscientiser et sensibiliser les parents à mieux éduquer et entretenir les enfants pour obtenir une bonne éducation de base, car nous constatons présentement tous une dévalorisation recrudescente de nos valeurs permanentes. Chers parents, regardons-nous en face et osons le dire. Si la médiocrité, l'arrogance, l'ignorance et l'indiscipline sont bénies, le futur s'assombrit. Alors, que cette jeunesse, qui est le fer de lance, constitue le futur, voir l'avenir de notre Donc, tout le monde en soit, tout le monde en beaucoup soit, chers parents. xam xam sama diggante ak moom hmm? nëbbatuwul sama mère la sama sëriñ la njaba sama jarbaata ngi toog ëpp na dix ans su ma soxlaa mère moom lay doo wala Lamine Aïda Lamine ba mu fiy njëkk def programme di sant sëriñ Fallou man la woo ne ma damaa bëgg nga toog sama yoon ba tey Ndiassane Pire may ñëw ba may dugg sama oto dama mel ni maa ngi digg tali bu mag wala digg ridis leer nañ potu lampe yi ma indi ko ba ci sës ba ci fii angle bu nekk ñu dóor fa potu lampe parce que ñi dëkk Niassane Tyr ay noble lañ bañ moo bañ moo tax demuñu feneen ñu ñëw dëkk ci gox bi fekk mu nekk àll ñu bëgg sàmm seen dignité des ak seen njaboot ñu sëkk fii dëkk fii ñooñu boo dee meeru gox bi danga war a am benn espèce de yërmande ci ñoom doo ñëw di toj doo ñëw di dàq da leen di accompagner defar leen philosophie boobu ak vision boobu laa ànd ñoom man pareeguma ci Ndiassane yéen mbalit bi laa dindi taal lamp yi ngeen di waxtu su ma yëkkatee centre commercial bi lan ngeen di wax. tey conseil municipal rek laa doon rendre compte li ma toog ak président Macky li ñu doon wut fii Bernard vous avez l'information officielle aujourd'hui que j'ai délivré en conseil municipal président Macky Sall jox na commune bi fii pour ñu def fi centre commercial def fi maison de la femme def fi maison de la jeunesse siège u AS Pikine zawiya Cheikh Omar Foutiou Tall manège comme Magic Land fi xale yi di foowee yor seen njoowaan di balancer di wër def fi maison de l'outil def fi centre numérique pour ñuy jàng informatique def fi maison des handicapés ñu jox leen fi seen siège partenaire bi leen di tabaxal xam nañ ko ba pare waaw léegi loolu mooy am fii ñu sëkk fii boor bii ci ginnaaw. waaw Ndiassane bii su commencé yooyu liggéey yi ci am bu ñuy tabax dinañ jël waa terminus Talibés wala waa ñetti maat ñu fiy liggéey bàyyi waa Ndiassane te man ma nekk maire Pikine kon jeunes yi bëgg a liggéey préparer leen su paree kenn moo ciy nekk maire Tako da nga defee ne bi su paree du fi am place te mu ne man ma ne yaayam sama yaay la moom mu ne sama doom la ma tabax fii centre commercial mu pare. mère ko cantine bi dañ ciy bind cantine mère Tako maa ko koy jox moom mu toog muy addiyee sëñ Fallou bi ma koy jox publiquement laa ko wax su amee ba ñu inauguré ko nee leen ma ana cantine bi nga digoon mère Tako fii digg naa fi ñeneen du ma tudd seen tur mais bii dama bëgg mu ne fang ngeen xam ne maa ko tëj te ñaanal na ma ngir makki Sall jox ma projet bi promoteur bi boole naa ko ak moom mu dem këram mu digal ko ay sara jaan yi fi nekkoon moom ak doomam ñoo leen jàpp jinne yi ñu randal leen bàyyi ñu bàyyi ñu ñu ñu loolu ñu koy dox ci suuf boobu ba léegi semaine bii passé la commission CD CCOD daal di délibéré la ma doon ñaan ci ndigalu président de la république mu ne Amadou Ba à trois heures du matin la ma woo ne ma mag Sall moo ne ma woo la yow lan mooy kaas dégg naa yaa ngi mer di wax ma ne ko président moo ma digoon fii 4 hectares ci Ndiassane ba tey joxaguma ko ba pare ngeen bëgg ma parrainé parrainé wu ma mu ne ma yow yow réglé affaire boobu ku koy réglé ma ne ko moo duggee directeur de domaine moom ngay woo mu réglé ko mu ne ma bàyyi ba suba man ma jékki rek conseiller woo ma ne ma monsieur le maire ça va ça va dama bëggoon ñu def benn réunion man yow moo Gueye sur instruction du président de la république di premier ministre Amadou Ba te nee na Macky Sall moo ko jox ma ne ko ci affaire lan mu ne ko ci affaire foncier Pikine Nord yow yaay kan noo tudd mu ne ma Vincent man maay conseiller Amadou Ba premier ministre ma ne affaire bi kat tàngal bi ma tàngal baax na ci. ñu <coughs> toog dajale dossier yëpp semaine bii ñu génn alxames tey la alxames bee paase affaire bi jàll ñu génnee PV bi woo ma ne ma jàll na dañoo bëgg nga ñëw nga coché lan ak lan nga wax moom lañ fay def et ci équipement ma commencé di lim. li ma njëkk wax mooy centre commercial foofu nag maa ngi xuloog promoteur bi parce que ba may campagne dama doon wax 2000 places ma doon ma maire li nga bëgg nag soo bëggee lii bëgg lii bëgg lii centre commercial 2000 places nag du fi am place xanaa ñu jël 1 hectare bi yëpp ñu jagleel ko ko duñ ko wàññi def ko 300 ma ne ko 300 bu lan 500 kon bokk 500 parce que li tax ma bëgg 500 dama bëgg au moins 200 yi <laughs> ah? promoteur bi day tabax am business am waaye bu tabaxee ba pare am na li nga xamante ne da koy teg ci loxo meer. jaar bu baax a baax sama xarit macha allah naka coono yi. tey dafa mel ni dañ la fekk sa fi nga dëkk muy Pikine ah, tey ah, li nga xam ne mooy li ñuy defal xale yi di leen jox cadeau yi tey yéen a yoroon wàllum théâtre bi tey lan nga ci mën a wax sa teewaay fii ak sa relation. waaw teewaayu mbégte rek na xale yi ñun bu ñuy ñëw ci seen ci ñoom mbégte la ñuy ñëwee ndax ñun ay ambassadeur lañu. soo xoolee Pikine école yëpp man maa yor xale yi di leen defal ay arbre de Noël ay mazorette di leen jàngal théâtre am naa tur bu ay enfant bu nekk école Cheikh Anta kon saa yi bu ñu ma invité xam ne affaire xale la dama ciy sawar ndax man sama lépp xale la théâtre na moom mooy sama lépp Wemba nekk sama xarit ñu bokk aar moom muy def aar place moom muy def aar décoration man may def théâtre bu ma invité war naa mën a ñëw en tant que doomu Pikine noor ñu toj fii la jaxe fii yaa ma gën a xam daal macha allah foo nga xale yi joué ngeen xale yi xam nañ ne euh, tey seen seeni moroom lañ jàppee ne ñoo ñëw di leen bégal te loolu yéen artistes li ngeen di def dafa am solo tey ñu nga xaw a réer réer réer laay wax sax ci li nga xam ne moo di téléfilm yi bu dee yaa ci tamit théâtre sur bi tam nga gën a concentré wu ci jamono bii ñu toll lan moo waral loolu. waaw mais théâtre sur moom du moroom lenn ndax man ku ne xam na ni man théâtre mbedd laa jàngee théâtre amul lu ma jëlu ci théâtre ci au niveau national fees nag semaine de nationale de la jeunesse nawetaan trophée bu ne gañe naa ko ci théâtre sur scène mise en scène bu ne def naa ko ci théâtre sur scène tey seen génération tey bari na ñoo xam bu ñu bëgg amee amuuru yor troupe bay def théâtre man am na joué naa ci rôle ba ndax bi may yor troupe théâtre troupe bariwul ci département pikin soo génnee euh, Marie Ndiaye génne génne Ah, ay ñoom Mansour Mbaye ma jaaga nit gënuma njëkk a yor troupe fii ci Pikine may formé artistes yu bari jaar nañ sama loxo tey jii ñoom ñuy nekk ay metteur en scène di di góorgóorlu di théâtre téléfilm yi na moom daf ñu dab nii rek ñu ciy dàq koor rek comme naan boo woore ba benn heure di ci dàq koor mais théâtre moom mooy sunu mooy sunu lépp moom moom ñu bëgg bu ñu koy def day neex su ñun xale yi na laay yor di leen formé ak ñeneen ñu doon g sànq macha allah ñoom ñooy nouvelle génération troupe Nour Sams théâtre daal waaw xam naa ne moom dinaa gën a yàggal waaw parce que KS ay ndax yàlla sax KS. feeñal la da ngaa siiwatut. KS feeñal ma oh ay eh, KS waay. KS TV au moins ñu siiw tuuti. waaw jàpp nañu waaye jàpp nañu ci waaw. fi mu ne ci ngay doxantu. oh. jaajëf Anta Bell bàyyi Max bu ndaw Sénégal xaaral ma ñaanal leen waa KS. la mort de ceebu jën au cours de premier nag naa ji ay suppame l'argent de ref lañ di nuyu bu baax. ñu la nga présenté wu. maa ngi tudd Lamine Fall Vemba may artiste menuisier sculpteur décorateur de intérieur dëkk Pikine Louis diis si quartier bu ñu naan Ndiassane Tyr. lii ngeen initié tey mu lan la. bon dañoo toog si gox boo xamante ni dama mun naa wax ni Ndiassane Tyr moom mujjee juddu pikin ba pare gën a siw ba pare bari enjeu yi si nekk. fekk fi suñu yaay suñuy pap am association bu tudd ànd defar suñu gox li gis ni association bi ñoom ay magal si nekk te xam nga mag après c'est la relève qui prend ñu nekk un démembrement de ànd defar suñu gox ñu ne pourquoi pas mouvement de la jeunesse de Ndiassane Tyr ma woote ko ak sama benn jigéen wali bari ni woo suñuy sœur ak suñuy sister ñi ñu bokk génération ñu toog wax xalaat ni dañoo war a dundal gox tey gox lu koy dundal pour man jigéen la ak ay xale ni tombé si mois de décembre ñu ne pourquoi pas ni def benn genre arbre de Noël remise de gato kado pour les enfants de nos quartiers chaque maison un kado looloo andi initiative bi. bi mooy euh, première édition. bi mooy première édition bi franchement parler bii mooy première édition bi looloo tax euh, ça reste un peu à désirer parce que loo gis rek si un lay commencé. deuxième bi dana meilleur ba dañuy àggee si dixième édition bi mais pour moi on a fait une réussite totale parce que c'est pas facile des jeunes d'un quartier boo xam ne moo ngi mujjee dugg euh, rassembler des notables des responsables et le maire en personne est la première agente au maire avec le représentant de tous les chefs du quartier bi ñu tuddee bés bi le euh, parrain Samadra di tuddee ko tamit yaayu gox bi muy ñaañ jaayi gox bi muy Ndey Jatu jabaru Amadou Diarra ñu def une forte délégation aujourd'hui c'était l'ambiance à Dia sentir franchement parler xooli naat na. macha allah tey daal kon ñi ci jàpp bari na lool suñ la déggee. tey ñun ñoo ñi ko jàppale suñu bopp du ma wax ne ñi si jàpp bari na loolu ñun ñoo jàppale suñu bopp ndax euh, ñëw leen ni ñuy jàppale affaire yi kaay ñun ñun ñun ñoo jàppale suñu bopp parce que ñun dañoo woote suñu bopp ne ay barigo si mbartal nen. te boo nekkee si gox di liggéey di prouver nguur ji da lay fekk si loolu par force la parce que day xam ni barigo si mbatta pour su mu dem pour su mu dem intérêt mooy mu fekk si looloo waral tey ji ñoom it ñi fekk si ñu jàppale ñu si nu ñu ko munee waaye ñun ñoo jàppale suñu bopp ba balaa ñoom ni ñuy jàppale. macha allah ñu ngi lay jaajëfal. merci kontaan naa si yéen trop trop ak seen déplacement franchement parler mënoon na ñàkk mais xam naa da ngeen dégg thème bi ndax on parlait de l'éducation de base. lu tax ni sukkandiku thème éducation de base dañoo seetlu ni éducation de base moo ngi commencé disparaître si suñu société ni perdre suñu valeur ndax bu ñu dem ba biir assemblée nationale di si saagante ay ndey donc éducation de base moo ngi dem ba pare xale yi ils sont plus à la rue qu'à la maison looloo tax ne leen waxtaanee si éducation de base ñu am fi yaa Cheyda boo xam ne pendant plus de vingt ans moo ngi jàngale si mbirum diine mu sensibiliser ñu tuuti ñu andi un peu l'inutile à l'agréable pour faire vivre notre quartier. De rien.